mais am na coow lu ma fi dégg fan yi fusion Fass écurie Ndakaaru maanaam boole écurie yi mu nekkee benn wala ànd liggéey yow loolu noo ko gisee a ah, mais ñoom xam nga tamit ay mag buñ buñ organisé yow yow amoo dara la ciy wax lu hmm. si mal placé bu di wax ci yooyu mais Fass dama bëgg xam Fass écurie bu mag la ña hmm. fa nekk ay ndaanaan lañ euh, boole ba kenn bañul boole hmm. waaye ñu recherche ba xale ya fa nekk jéem leen jéem a xool ñu jógee ci kaw lu ñu gën a bari rek ngay gën a am problème lu ñuy gën a bari nga jàngal cinq personnes wala dix personnes moo gën a yomb nga jàngal mbooloo. waaw cent personnes waaw exemple laa lay wax rek bañ bañuñu ko phase bi ñu def baax na waaye foog ñu xool nuñ jàngalee booy yu bëri mooy bari parce que bëri dañ koy jàng am na booy dem mbapat di bari ji booy te ñuy faas ñu faas ñu xool seen i éléments ñu leen di ay jamono dañ doon téye mbër topp la di la suivre boo tëddee xam nañ ko boo génnee xam nañ ko foo teg si tànk dëkk bi xam nañ ko su ma ne ko doo génn mën a ma noo gars yi lay suivre de kon xam nga ne jamono yooyu Fass da doon si seen mbëri mais léegi sax amati nañ temps suivre seen mbër est-ce que mbër du ñu liñ tas moo tax dëkkatuñu benn secteur boo xoole waaw fu ñu mën dëkk war nañ am yoo xamante ni ñu ñoom waaw parce que Fass lañ ba dañoo bari moom ah jàppale rek jàppale xale yi kon fusion bi maanaam phase pour yow da war a ja ne ñoom li ñu yor nañ ko téye ñuy dem di defi leneen quoi waaw mais mais ko xam nga Kati Diop moo a baax rek waaye maanaam ñi fa nekkoon dañ leen war a teg ci code bañu am ay bonnes conditions bañ nekk xam ne di lee commencé lekk si làmb sax ñu doog a jël ñeneen parce que boo jëlee ñeneen jàppale ñooñu rek mhm. te bàyyi yeneen boo yi fa nekkoon rek na am xale yi mën nañoo gédd te yow coow ngay bañ non ci coow poy la ba parce que tamit am na xale yu fa nekk ñu bari ñoo xam ne dañu a jàppale ay général la nga fa mhm. ay Baara Baara nga fa mhm. ay booy ñoom bo Forza nga fa mhm. mais ñooñu koo ci bàyyi rek di topp keneen rek ñoom lañ koy gis dañuy gis ne kii moo fi ñoom ngeen ko jàppale bàyyi kee kii kii bu dàqee bëre bu dàqee bëre xam nga kee nga jëm kon boo jàppalee ko bàyyi kii mën naa gis moom <laughs> waaw yoon la yoon la yoon la lamb da ngay waxtaane da ngay waxtaane rek dañ koy waxtaane rek mais mais Fass écurie bu mag la xam nga fu ñu naan université la ñu ne léegi nekkatu université nekkatu dara te surtout université baa nga fa ba tey waaw hmm. parce que fu boy naar nekk mbay gee nekk fa maam góor gi njaay nekk fa hmm. faga de nekk fa foofu mënul ñàkk ay ay mbër daa war di ndax suuf la sa toqantal ga la nit mën naa ñëw fekk toqantal gi jóge fële dàq bëri toqantal gi kon na nga koy jàppale bàyyi toqantal gi parce que toqantal gi fonk li muy def kay fekk lu muy def kon boo ko jàppalee rek kii mën na jégis boppam Jordan bu na soxla na la parce que daanoo ko Tamba ban Tamba Tamba xam nga Jordan bu dee fii kii kenn du ko jël ci àddina moom gars yi duñ ko jël dafa mën a bëri Jordan bu daa mën a bëri gars yi duñ ko jël ah. Jordan ba muy bëri moom Tamba ba Tamba moo jeeku lamba ja ba Tamba ba Tambacounda bi Issa moo jekk làmb ji. yow foo lijjantee làmb gis mu toog mën na koo làmb ji di a a ma li may toog yëpp maa ngi dindi ay fas sa kaw te xamoo ko cimikaay bi ñëw cimikaay bi. Hmm. bare a manqué xam fekkee ne ko am daal balaa mu daal hmm. gisuñu ko ñun. booy ba barki Serigne Saliou moom jaaxal na ma jaaxal gox bare bi laaj naa ko nee naa ko waa. loolu doy na la ndax lay laaj daa baax baaxul. Ah. Modou ku xam na ne moo tey couronne bi rek te couronne bi boo ko téye yombul couronne bi foo ko yóbbu ku ne eh, àdduna teraanga la xam nga ay bu ñoom biram ñu ngi ñoo ne ci gannaawam xam nga Modou balaa wax rek gars yi dañu wax waxal. kon mu da nga jàpp ne tam day bañ ko ko mere. non non mën na bañ ko ko mere sax mais xam xam nga boo jëlee sa bopp dénk ko nit. waaw dañ war a waxal. nga doog a wax nga doog a wax bokkul ak man mi nga xam ne ni fu ma neex wax. Hmm. maanaam ñooñu dañu toll foo xamante ni dañuy am koo xamante ni bu ñu amee communication leen di waxloo. mais ñooñu dañuy fàtte ne war a waxloo ne ci làmb ji ñu ubbi ko tuuti ñun ñu ñam dara ñam dara benn six mois nii am yow bu si kër mais li mu tëjee yàgg. Ama Baldé Modou Lô. dañ ne ñi dañ ne bu yàggee Modou am ndam ñeene bu yéexee bu gaawee Amaay am dam mën naa gaaw Modou am mën naa gaaw ah. waaw waaw. lu tax loolu bëgg a foofu. combat boobu combat jànq la de. waaw nga xam nga Modou ku ne xam ne Modou Lô ni mel. Hmm. Modou Lô boo gisee mi dem ne. Hmm. woowee ko Modou ko. waaw waaw boo ko gisee mu dugg ci làmb ji ba tuura butéel ba woowee ko xarañ loo lu wutale ñaar yooyu ni muy wuyoo ci mbedd mi hmm. ak ni muy mel ci làmb ji bokkul day soppeeku maanaam bu ñëwee ci làmb day soppeeku day soppeeku ci biirub géew day soppeeku ndax làmb ñu bu fa ñëwee moom dootoo dootu xamee Moodu xarañ rek lay dégg Ama nag moom Ama la tudd waaye bu ñëwee si làmb ji sëll bu ndaw la ngay wax mbëkk rek la lu mu bëgg day mbëkk rek dem. waaw te Modou Lo day Ama day dem. ñaar ñooñu bu dajee loofa xalaat. ah en tout daal combat bu mag la xam naa ne Modou Lo moom du arrière Ama. Hmm. te Ama tam yaakaar naa du arrière Modou Lo. kon naa jël ba mën naa gaaw. mën naa gaaw waaye mën naa blessé tamit. arrêt de médecin xalaat nga ko ci yée am na jël nii lamb jooju dafa métti lamb jooju lamb jooju man dama leen yërëm sax ndax entraînement yi coow coow coow la dana am bis ba ndax combat bu mag a maga a mag a mag lu combat bu ndaw xam nga Modou Lo dafa mën bis Ama tam mën bis Ama loo koy moytuloo Ama li ma koy moytuloo ci boobu mu bañ a encaissé coup mooy mu mën a gérer combat rek lu mu réeree mu war ko mën a gérer. Ama bu encaissé coup lu ko ciy fekk. non xam nga lamb làmb damay wax rek xam nga coup bu métti mën naa yàq làmb. waaw ah, éviter. dama ne ko bu doon su ma Ama damay éviter coup mhm. ba pare bëri bëri waaw ndax xam nga coup foog nga koy métti mais am na coup yoo xam boo ko jëlee rek salaam mën naa yàqu. pied gauche moo du droite. Ama kan mooy gën a avantage ñoom ñaar ñëpp avantage nañ ñoom ñaar ñëpp am nañ benn problème ci benn instant bi nii mais mën nañ ko lijjanti ci làmb ji ndax ay mbër lañ ci biir bëri waaw waaw yow nga niñ koy lijjanti ah am na lépp ci biir bëri mën nga may soog ma saa tegal la bii <laughs> xam nga yéen la <laughs> loolu combat bu rëy la parce que tamit ñoom ñaar ñëpp métti na ci ñoom uh-huh. mas ndax Modou du ragalul bis Ama ragalul bis non xam nga ñaari pieds yi. waaw ñaari pieds rek maa ñaari pieds ñoom ay technicien lañ mën nañ koo changé ci biir làmb ji buñ nax gars yi. Modou ne du ma ñeexum ñebbe. a ah, loolu wax dëgg la de duñ moom Modou Lo moo dafa mën bis moom bis moom ku wax ku xool Modou Lo ñaari ñaari defet soo ko daanee combat bi. Mhm. dina ko lijjanti daan ñeneen ñaari combat. doog a ñëwaat doog a ñëwaat. Balla Gaye de danañ boo ko bëggee def dara da nga ko koy nëbb. yee da ko koy nëbb. moom mi bëreeg moom ñaari yoo waaw na moom ñaari yoon waaye nag ah doomu Falaay ba te mën naa de. waaw sëllu bu ndaw ay bu sëfee. seen ngeen bu ñoom ñaar daal xam naa ne. gaay nan ko ama yaa yëngal pikin. waaw waaw mu mu mu mu mu bajantu. waaw di bajantu ko lool. day bajantu ba si yàgg ba si yàgg mu laal ngeen li. waaw neneen li xaalis la def. moo tax laa bu amul xaalis ak toogal. toogal waaw Modou bëri am moo macha allah ñoom Modou rek ñoom. Gribo Modou jaar fële. waaw waa parcelle tegul ko waa parcelle. waaw waa parcelle bu ñu yëngoo ba 26. waaw bu ñu yëngoo ba stade yuuxoo rek saa waay mën te reetaan boobu reetaanu caay caay la réew bu gàtt ba caay caay la ah, reetaanu caay caay bu waa Fass tey bu ñëw 1 ba 26 ba gaa yëngal ba stade bi yuux noor am na reetaan bu caay caay bi muy reetaan te xam naa ne ma xam ne kooku mbër la mbër la ñaari mbër daje de lamb ji ah. ah man lamb ji ku ci wax yàlla boo amee gémmiñ gu mooy genre combat yii bis bu mag la de kon de Luc Nicolaï def naa affaire non Luc c'est le maire ah. Luc Nicolaï waaw barki Serigne Bamba Mbacke sama xarit damay woo di waxtaan ak man looloo tax mu neex ma musuma may xaalis le promoteur du continent. musuma may xaalis. waaw waaye tuddee naa ko du ma mu am lu mu ci def. mais dafa baax man mu nekk sama xarit nekk promoteur dafa war a doxal mu léegi bu ñu ko ñaanalee yàlla doxal ko làmb ji làmb ji dina avancé. moom waaw ndax dafa dafa am sañ-sañu def. ñi mën a ñi mën a relever défi de. yee sañ-sañu def la am sañ def combat nga def ci lu bari mën na ko. génn xaas bu weex mën na ko de. lamb du calculer mo problème mooy loolu moo tax bëggee calculer sa gars koy téye ñoom daa ñu naan ko non loolu daa du bës soo ko bësul bu télé bu wax gars yi koy bugg ba am na loo xam bu ko waxee da def sama xarit la sama genn wàll bàyyi wili wili sama xarit la xam naa fa dem fan yi suma jox ma ci laadu mi mais nag dégg fi nga teg loxo nooy na de foofa la dégg naa yaa mbaaw saal di na ay boos yor sa ñaari 4-4 macha allah. déedéet <laughs> dégg naa lool laaf cat laaf cat war naa lool ci kaw. loolu gars yi dañuy wax rek marchand ambulant laa bitik a dara yaa ngi say carte grise déet carte grise de wax dëgg yàlla ma dara damay marchand ambulant daal zim zim ayru bi body pompe lay def. waaw. dafa ma zim ak gars yi ba kii wàññi biir yooyu maa ci gaaw ak yokk ak xale jigéen ñi dañuy bëgg dama koy mën dama ko jàng. Hmm. xam nga mbër boom sport moom boo koy dee ba da ngay jàng leen ñi mënoon ma ab sa ay butili ay woon moniteur dafa baax day tax sax nga looy dimbali ngay entraîné waale comme man ma entraîné ma nee waaw mais kon boo yoree salle nga entraîné léegi waaw dafa génn la dafa baax dafa looy waa looy wax waa Equivox ak Babacar ak Equivox ñoom hélas xam nga xulle d'abord dafa tax ma xel bi dem ci Modou xulle mën a xam nga xulle moo jënd caméra yi maa ni kon Saalum Saalum la Saalum xam nga Saalum mbaxalu Saloum moo tax ma bëgg ko ndax Assane ndeysaan ma Kaolack su ma demee këram rek ne Tapha mi defal na ko mbaxalu Saloum rek ndox ma damaa bëgg Saloum ay Saloum Saloum même hélas mais Saloum Saloum ayé Saloum Saloum na dama leen xam damaa yàgg ak ma di bawal bawal waaw keroog ba ngay góob waaw góob maa ngi lay gis xam nga tabaski loolu yow laa koy laaj maa ko xam mooy nga neex bay sa gerte ba mun a ñang nga war a di yàq <laughs> war a góob war góob war a sa ñebe war a wit sa ñebe loolooy tabaski loolu loolooy tabaski loolu boo tabaski rey say xar boole ca barki rasulillah loo togg mu neex yéen daal xam nga ne loolu yéen saalum saalum la yéen ak moom ak bool bool ngeen àndal yéen daal bu leen gën a muus rek <laughs> ndax saalum saalum wax naa la muus waaye bool tamit kenn gënu koo muus <laughs> ñoom ñaar ko gën a muus saalum saalum ah ah lu ko daal bool daal xam naa lu am yow bool la yóbbu te saalum tam lu am saalum la jëm loolu ma jaaxal <laughs> mais ñoom est-ce que du ñun ñoo leen gën a muus ah xam naa bool de muus nañ ndax yàgg nañ fi yàgg nañ Dakar de mais de kontaan naa barke ñoo yow yow yaa na yàlla defal jàmm di ziare waa Equivox yëpp di ziare directeur ba ca promoteur ba waaye li ma jaaxal seen directeur ba mu waxaat sama combat loxo baa dagg <laughs> kon Aline Badara Diouf waaw yow laay waxal deux nee na loxo bu dagg waaw bu dagg da ngaa bëgg mu gën ko wàcce orange money bi war naa ñëw Equivox bi mooy daw Diouf ñoo ko bàyyi Aline Badara waxal Aline Badara waaw euh, orange money bi naa ñëw ndax Equivox xam nga ne mooy suñu télé boo bëggee dégg-dégg moo fi ne kon ca kaw ca kanam Equivox ci lu baax ak Babacar TV